ñaar ndax jafe-jafe yi moo tax war na noo jomb dem ba ci kër kër gi nga xam ni sunu tey ak sunu ëllëg foofu lay baaxee muy kër gi Sëñ Tuubaa ñu naan dañuy laaj àddiya ngir mottali àddiya ji loolu war nañ koo jomb loolu nag wàccaay bi léegi lay tàmbali léegi mbubb yi rafet na téléphone yi rafet na vidéo yi jaar na yoon waaye jëf ji néew na te jëf mooy liy jàllale ak murid Cheikh Ibra Fall mooy balance bi ñuy nattoo dani maa ngi xaar ba fu ba yàlla fay wax bàyyi jëf jëf jooju nag moom laay fàtt jëf mooy defal jikko murid loolu nañ ko xam bu baax a baax a baax te fonkaat liggéey bi liggéey bi wax saa bu wax bare rek nañu xam ne jéego yi moo néew moo tax waaye bu jëf jëf ji buñ ci taxawee wax day néew jëf am waaye léeg wax bari te ki ngay waxal gisut sax intérêt wu ci li nga koy waxal xam nga nit jàpp toog ci fi mu toog saña a tudd baaba ñang exemple lay joxe sañ yàq ci deru baaba ñang lu ko neex te moom mu leer ko ni baaba mësul toog tudd ko ci barab xamu ko sax loolu noonu ko baax maanaam ànd bi kenn ku ne ci ñun boo mënta jàppee sa bopp ni nga jàppee sa moroom aw rax nga ci biir mbooloo bi waaye li la war mooy nga génn ci waaye bëggante gi daa war a mat pas-pas bu dëggu bi dafa war a mat jublu gi tolloo jëf ci itam maase loolu maa ngi koy bàyyiloo xel bu baax a baax a baax a baax ñun ñëpp noonu bàyyiwaat xel sëñ tubaa mi bokk yaakaar sëñ tubaa laa wax nanu ko bàyyiwaat xel am na bis boo xam ne faw mi ngi sunu kanam te dana ñëw ci kenn ku ne ci ñun te bis boobu léeg-léeg sax jataay bii ñu toog man gis naa ci fii ñu toog nga xam ne ñuy wax ci sëñtubaa nga ne ci sa téléphone jàll ci leneen te yow sëñ nga yaakaar am na bis boo xam nit ñëpp laa wax ñëpp danañ wëlbatiku bàyyi la yow kot foofu foofu foofu ku baax ku ne tudd nañ ko ci barab boobu moom ginnaaw dama ni bis boo xam ni yenent bi ci mboolem yenent yi nga xam ni kenn ci ñoom koy limal benn bàkkaar bu bu mën a tudd amut buñ leen nee jug jug leen jaaxle gi ci ñoom lay delluwaat kenn ku ne da nga dem sa xel dem ci lo jëf joo xam ne jëfoon nga ko jàpp nga ni suñu borom mi ngi la koy topp si waa muhammadun moom des ki bo ñun ñëpp bokk yaakaar muy Seydina Muhammad foofu buñ fa àggee ña bo ña àndoon ak Sëñ Tuubaa te muy dëgg ci ñoom te dëgg gi ci biir bàmmeel lay tàmbalee mooy boobu bu ñëpp nee wëlbeet sa jëf taxaw jëf jooju ba xam ba nga koy jëf Sëñ Tuubaa a taxoon keroog di ko xam ca jaraay boobu da gis yow da gis say moroom ñëw taxaw jàng ay bayit won la ginnaaw dem seen yoon nga xam yow ketta fa kotta fa des loolu fii lañ koy liggéey maam ci waxtu wi kon nañ ko bàyyi xel ànd bi na dëggu ngir jëmi Sëñ Tuubaa te nu génn ci foo yi ñu ne fonkaan su fonkaat sunub jàng wallaahi al azim àddina yépp dina tudd te amoo métier man la amoo métier amoo ñàng mu soli bis dana ñëw ñu jéppi la wala nga jéppe man xam naa ci daara jii keroog wax naa ko réunion koo xam ni dox jamono dox na fi ne li muy def mooy bu xëyee message baaba message ma message diw yoroo 2000 yoroo 2000 mil da koy dajale te loolu li ko yóbbee mooy waxtu bi mu waroon fonk njàngam fonk ko xëy di topp mbedd yi di wàññi pot làmp nga xam ne lu xew ñu gis la ci ginnaaw am na loo xam ne aw ndaw sax war na koo jomb ñun dañoo am yi way jur te fonk leen war ñu sa way jur lu mu bañ bañ Sëñ Tuubaa yow fonk moo la war lu mu ko bëgg-bëgg fonk moo la war ndax kenn ku ne ci ñun boo demee sa kër sëriñ da fekk da bu bu dee way juram mi ngi dund da nga fekk ni mu fonkee way juram loolu nga war a tonk topp ci tàng ndax aw sëriñ ab sëriñ exemple la mooy koo xam ne da nga ciy nattee sa bopp loolu la soxna Sukaar waxoon kon nan góorgóorluwaat bu baax daara ji nan ci góorgóorluwaat te bàyyi naxante bi te bàyyi xëccoo bi te bàyyi teg ci aw deru gor loo xam ni tegeesu ko ziar bii ñu jëm bis ñu tey lañ koy tàmbalee waaj kii jëm sa jëf lu mu bari bari ni mu koy ni mu sëñ Muntaxa ni nga koy joxee aw jëf mu téye ko noonu lay jàkkaarlooy sa xol xam ne ci ne yaral xafaaya bi hay nil xal bi loolu kenn kenn bu doon àddina benn ci des ma waat ne moom la kon nan ci góorgóorlu bu baax a baax a baax maam nan góorgóorlu sëñ bi nan góorgóorluwaat ci daara ji nan góorgóorluwaat ci bañ a sàgganee liggéey sëñ tubaa am na ci ñooñ ñoo xam ne dañoo bokk ci daara yu mag jàpp nañ ni bu ñu toogul ci daara jooju jeneen daara juñ toog yitte ji ñu war jox jataay boobu duñ ko jox te sëñ Tuubaa bi nekk fee moo nekk fii loolu nan ko xam maanaam faaw ànd bi nu nu nu wéralaat ko kenn ku ne si ñun sa moroom nga sañ waat ni amoo ci dara dox seen diggante lu bëgg Sëñ Tuubaa loolu maanaam mooy daara ji ñu wàññi jàmbat yi te jéem a dox yu bari ay wax la wax te mbir mi nekkut foofu Masek Diagne mi ñu tudd léegi nekk na ci mbooloo mi lu mat fukki at ak lu teg moo yoroon waañu daara ji nekk fi te am fi am fi taxawaay boo xam ne bu musaana ñëw dañuy xam ne sunu jaaxle dañ na te mbooloo mi kenn xamu ko te wallaahi alxasim bu ñu su bu ñu ne woon ku ngeen ëpp yaakaar man bu ñu ma laayoon ku ngeen ëpp yaakaar ci moom ci jataay bi ma tudd ko ndax pas-pasam bu wér kon liggéey bi foofu la war ne maanaam wuute yi wuute yi du ci du ci làmmiñ yi ndax lii ñuy tudd bu yàggul dara Malick Ba Hizbut-Tarqiyyah daan ngeen gis bu jàngee ba génn ay nit daw topp ko di sanab di nàngam di nàngam mu xëy tukki dégg ko bu wàññee ko waatam wàcc aéroport bu taxawoon fii am na ñoo mun ñu ko xàmmee mbir mi du jëmm yi du jëmm yi du yow yaa extraordinaire waaye li ngay jàng moo extraordinaire li ngay jàng moo lay def dara loolu bu ñu ko fàttee loolu nag bu ñu ko topp fi ne xasida ni julli mel noonu la xasida mel julli jaamu yàlla la xasida jaamu yàlla la gisoo kenn kuy julli di julli ba ñu xëy di ko sinap naan diw dafa mën a julli yow booy jàng xasida bañ lay sinap da nga war a tiit xam ne àddina mi ngi bëgg a dugg ci sa liggéey loolu jotewul dara ak wuti gi nga war a wuti métier jotewul dara ak wuti jàng gi nga war a jàng boo nee ba gis ne saw xel neexul ci jàng bàyyil nga dem wuti métier waaye bu tardel sa bopp kon nan góorgóorluwaat baax a baax a baax a baax jàmba ji nag bari na man gis naa koo xam ne weddi na wax joo xam ne man naa ko dégg ci Sëñ Saaliw Ture kenn fekkeew ko kenn ku dul Mouhamed Nabi Fall man ak moom ñoo toog Sëñ Saaliw Ture wax ma dégg ma ñëwaat ci mbooloo mi nit yi ko nit taxaw daal di koy weddi mel ni mel ni ku nekk ku nekkoon koo xam ni ca jataay ba ma nga fa toog waaye yooyu yëpp baax na liggéey bi moom maa ngi leen di waatal ni am na ci ñoo xam ni duñ teew ci jataay bii waaye seen bakkan lañ ci gaa maam sëñ Tuubaa rekk leen ñor jamono dox na ba ay tur bëgg noo wutale jamono dox na ba diwoo joxe suñ tur bëgg noo wutale Nuuru Daarayni bu lycée Médina Fall ñu dem daan ne sëñ buso sëñ Modou buso moo ñu tuddee Nuuru Daarayni ak ki nga xam danaan sëñ Modou Moustapha mu sëñ Tuubaa moo ñu tuddee Nuuru moo ñu tuddee Nuuru Daarayni ñaar ñooñu xam nga lu leen wutale kan moo gën a wér pas-pas ci sëñ Tuubaa am na ci daara yoo xam sëñ Blaata leen tudd am na ci yoo xam sëñ Saliou Mbàkke Tuubaa ci kanam sëñ Sidi Maxtaar moo ko tuddee Nuuru Daarayni ba xam daara yooyu li Tuubaa ci kanam jëf ci yoon mu daara yooyu jëf nañ loolu toll kon mbir mi du ci diwama tuddee am na ci yooyu yoo xam ne nañ ci génn doomi Sëñ Tuubaa yi ku ci yàpp ne yaa diw a gën diw wallaahi ke gën dof ku yàlla bind kenn ci ñoom ku gën moroomam amut wala bu amee itam ñun xamuñu ci dara amul fenn fu Sëñ Tuubaa bind daane diw a gën diw loolu amut amul kenn ci ñoom ku mën sa taxaw ne diw moo man man maa gën diw wala diwa ma gën loolu amut noonu mu amee ci ñoom ñun noonu la war a mel mooy sëñ fàllu na jàppee baaba ñaŋ bu mu ko xoolee bëtu maa la dàq jàng bu mu ko xoolee bëtu maa jiite kuréel bu maj ma ko ndoree nii waaye da ko xoolee bëtu mbokk taalibe ak sëñ Tuubaa bi ñu bokk loolu nan ko bàyyiwaat xel bu baax a baax a baax a baax ci maam ci liggéey bii ñun ñëpp bu ñu maasee woon daara ji ñor ñu maam baatu ñor laay utiliser daa ndax am na ñoo xam ne xam naa xel ni li leen ñor bariwut am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy xëy di dox di dem rek lu xew ñu mbu mbubb mbubb ànd ak ànd ak loolu loolu waaye ku daara ji ñor ku daara ji ñor am na ci loolu loo xam ne jomm nga koo def ci biir liggéey bi léegi nag mën ngaa bokk jeneen daala ñu koy dégg fu ne ci àddina waaye ñëwaat fii mel ni luy luy woyofal liggéey bii loolu war nga cee ragal sëñ Tuubaa maam man barab sàngam laa bokk loolu nga bokk bu ñu ko xoolee ba ci biir sëñ Tuubaa ko moom lii nga bëgg a woyofal itam sëñ Tuubaa ko moom tey boo yoroon junni yor téeméer ñaar yépp sa alal lañ amul benn boo xam ne danga nga ci ko joxe te du jur njëriñ lu jëm ci yow ci ñaar yooyu kon nanu dañu góorgóorluwaat bu baax a baax a baax maam ci liggéey bi nàmmaat sunu pas-pas bu wér ndax am na ci loolu loo xam ne liñ tënk lii baara wax ni moom la comité directeur tënk incha allah danañ ci gar sunuy tànk te xooluñu ci kuñ ci bëgg kuñ ci mere loolu nañ ko xam bu baax a baax a baax ngont yi ñëw itam benn bu ci ne dana doon ngont wàccaay maam jëm ci jëm ci ziar bi waaye sëñ Tuubaa moom dañ ko bàyyiwaat xel bàyyiwaat xel gi la ci jiitu mooy ñu xam kanay Sëñ Tuubaa ak lan la woote bari na lu waaye di nettali bëgg ñu yéem ko moo tax waaye Sëñ taxut te loolu nañ ci jóg nit lu baax baax nit lu mu baax baax daboo Sëñ Tuubaa te amut kenn ku nekk ci suñtubaa ku ñu mënta dab loolu amut Seex Ibra Faal mooy ki gën a rëy ci ñun sëñ Tuubaa dafa wax ni sëñ Abdou Karim Touré la ko wax dañu ko nit ñi de ñi ngi yéem Seex ci ci fi mu ma toll ak ni ma ko def waaye xanaa xamuñu ne ku ko ku Seex Ibra li ma jëfal ba ma def ko ni ma ko def ku ko weesu woon lu toll ne sara ma yóbbu la fu Seex Ibra Faal yeggul moom du parparloo ku wér ci moom rek la xam sëñ Tuubaa li mu yor yàlla ko jox loolu nag moo jafe mu nees naa wax sax mënta am waaye nan góorgóorlu am kenn ko ci ñun nan góorgóorluwaat bu baax a baax a baax te bañ a àtte nit ñi ci li ñuy def xaalis màngaan mii ci moom laay tàmbalee xaalis li muy def daara ji ñépp ko ci amel jaajëf ñépp laa wax dañuy jub ab ziar kuréel yépp kenn ku ne toog sa kër bu ñëwee suba la mu ñëw taxaw barab bi jëlee téere yi am na ay jamono yoo xam ne amul commission moom kese la wala benn wala ñaar ñoo ko ci jàppale jële téere yi ñëw teg organiser gamat bi ba bis bi ba ci waxtu bi nga gis kenn ku ne tàmbalee ñëw am na ñoo xam ni ci jataay bi ngay xamee ni ndek diw ci commission bi la bokk ñëw mel ni ñëw moom siyaat bi fu ne ñu jaagar jaagari fa nga xam ne xaadim ci boppam dañ koy mujj suul doo ko gis ci kaw gamaat bi mu toog day mujj toog ci suuf ziar bi jeex ñooñu dem xaadim des fa kooku nga bëgg nga bëgg maa xëy gëmloo ma ni xaadim mii ci parpar loolu lay dox te man ma xam xel ni xaadim li mu li muy teg li si amoon daag seeg sañ na koo teg ku la ëw mañ moo noreen liggéey bi rek ko ñor loolu nan ko bàyyi nan bàyyi yenn yi nan ko bàyyi na pas-pas yi wér maam ci Sëñ Tuubaa loolu yëpp li koy indi nag mooy ñu xam kanay sëñ bi maa xam sëñ bi li mu daj ngir ñun xam sëñ bi li mu daj ñun lii ma leen wax nii ci fuur bi ñu ko dëj bi ñu ko tëj daj na leneen loo xam ne dees koo nettali sëñ Saliou Touré dégg naa ko mu ni yeewu nañ ko ba mu ne ngott maam kon faaw ñu góorgóorlu maam nan bàyyiwaat xel bu baax a baax maam jëmmi liggéey bi daara ji doxaanante boole wunu xaritoo sax boole wunu lenn nu boole mooy wut ngërëmal Sëñ Tuubaa loolu boole loo doon doon sama waay loo doon doon sama xarit ma gis nga yaa ngi may gàllankoor di ma ñoddi ci yoon woo xam ne Sëñ Tuubaa newu fa ma bàyyi la loolu buñ ci sax maslaa loo doon doon sama waay ma gis nga mën a doon lu baax du wees xel xom du fi jóg amut benn liggéey bu ñuy wone suñ tubaab bu fi jóg yépp day sax kon sa waxtu xam ko barki démb nit nettal na ma ne ma dem naa ci kilifa gu mag ci yoonu murit ñu xëy nit ñi rang ko ba ngoon mënuñu ko gis benn waaye daan ne dara ci otoom ñëw ngir jébbale àddiyam kilifa gi génn gàttandu ko mu jox ko àddiyam mu duggaat mu daan ne ma te waajoo bi ma ko xoolee xam naa ñun ñii bi ñuy nekk ci mbedd yi di taxawaal moom mi ngi jàng kon nan góorgóorlu maa ngi jégalu baax a baax suñ baa xam naa